man jàpp naa ne weer bi ñu nekk benn jigéen waru ci feete dara man de du ma ci feete dara su fekkee dañ ma invité ci 8 mars 9 mars na nekk 8 mars boo xamante ne 8 mars grise lay nekk un 8 mars noir parce que début de mars le premier mars ñu agressé ci jigéen boo xamante ne nekkul n'importe quel jigéen jigéen bu am cër jigéen bu am euh, liggéey ci réew mi dara ba ñu xàmmee ko muy may Maimouna Ndour Faye jigéen ñëpp war nañu solidaire man diggante dem ak tey defe naa femme leader yëpp woo nañ ma ci mam jaare kenn gisula la man leen man nekkuma woon Dakar mais suba incha allah bu ma xëyee fajar dinaa fa dem teew fa donc mois bu naqari la nar nekk ci noonu parce que début bi moo naqari te on se le rappellera toute no toute notre vie durant un couteau a été poignardé sur toutes les femmes du Sénégal pour ce pour ce mois de mars kaddu bu naqari la góor moo ñu ko jox ñu jël ko parce que xëy na peut-être amuñu dara lu ñu joxe loolu rek lañ am moi je pense que góor ñi war nañ xoolaat seen bopp ci menaces yi ñuy def nit ñi ci naqar yi ñuy teg nit ñi ci métit yu ñuy méttatal parce que dama koy wax léegi ci tubaab ma ne la mës nañ fi def jigéen bu jël liggéeyam dem liggéeyi ba ñëw liggéey comme politique ñu génn ñëw këram ay góor agressé ko violé ko rey ko muy Mariama Sagna bañ ca tolloo lañ ca waroon a wax waxoon nañ ko ca fii tam tey biñ ci tolloo li fii lañ toll tey man mii di wax ak yow saa yu nekk ñu ne la maam jaara faam boppam jar na cinquante mille euros man nag sama bopp sama yaay daf que ki ko nar a jël ko jox cent mille euros ko parce que jàpp naa ni comme toujours ni ma koy a toj donc bàyyi nit ñi ñu nekk ci seen jàmm parce que dañ leen may jàmm nañ ñu may jàmm nañu nit ñi may jàmm ñu nekk ci li ñu war a nekk lii daal ñu ngi koy naqarlu ba fu naqarlu yam di ko méttatlu di ñaan yàlla nag xale yi nañu àndandoo ñun ñëpp bokk ndey bokk baay rafetal suñu xol yi ndax Sénégal gi kenn du jóge Guinée ñëw di ko di ko gouverner kenn du jóge Mali ñëw di ko gouverner kenn du jóge euh, Nigéria ñëw di ko gouverner ki koy gouverner ji doomu Sénégal lay dëkk day dëkk siin mbaa mu dëkk Saalum mbaa mu dëkk Kajoor mbaa mu dëkk Bawol mbaa mu dëkk Saint-Louis waaye kenn du jóge fii ci frontière u Mauritanie bi ñëw di ko ñëw di ko ñëw di ñëw di ko gouverner kenn du jóge Gambie ñëw di ko gouverner bañ nañ ko ba dañuy wax d'exclusivité sénégalais donc ñun ñëpp ñi ko war a gouverner ñoo war a bokk ndey bokk baay maase defaru àndandoo fóot suñuy xol te àndandoo je pense que ça là dina nekk benn ouverture pour que ñëpp xam ne Sénégal lu ñaaw xaju fii nañu bokk ndey bokk baay Maymuna ñoo ngi koy ñaanal mu jóg ci jàmm may Maymuna lève-toi et marche